combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha moo dajeek ñoom fi mu ko teg bëri na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mu sama kopp xool de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man gaynde kenn du ko daqee buuma ba tax na damay ne saraax di leen jaajëfel bu baax di kontaan ci yéen di am mbégte jano ak yéen chaque jour ah, li gën fës ci xibaaru làmb mooy suñu yitte dama jël nuyoo bi jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko di ko ñaanal jàmm bu bari bari ah Bamba moom papa dama lay bégee bu baax bay Babacar dama lay nuyu nga fay ma daal di ñëw jukki leen di gën a fës jërëjëf fay naa nuyu suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV nga ne gaynde kenn du ko taqee buum ku ko xamul rek moo ko yeewee sagal donc wante mbaam tamit ku ko xamul mooy fon wax wa mu nekk ay baati olof yi nga xamante ni bii lu mot a bàyyi xel jaajëfal nañ bu baax ñëpp ñi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam di am mbégte ak contentement ci ànd bi ñuy ànd ak ñoom chaque jour di leen àndeel revue de l'arène mais loo ci xamul Ndeye Mbacke ndeke toog ci gannaaw di seetaan moo dàq lépp yaak assan ñetti fan yi yéen a assuré revue de l'arène bi ma nekk ci gannaaw di seetaan mais macha allah liggéey bi am na solo yaa ma gaawal noppalu moom baax na yaa ma gën a leeral <laughs> damay bëcc yéen naat leen fàttali ba léegi huile j'adore moo leen di may revue de l'arène bi fii ci Leewtoo TV ah ak gambu complet bu mu àndal indil ñu vermicelle j'adore macaroni j'adore spaghetti j'adore ñii déeta baa bu daal ñu indil attaaya j'adore kenn du ak Alain nee na consommé local la nañ ko consommé ñun ñoo ko moom ah yéen a ko moom ñëpp a ko bokk mbay baabakat ko ci topp au oh, Kayar moo ci topp ndox mi nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp ko taamu ndax neex ga mu neex baax ga mu baax neex a jëfandikoo oyof pare xale yi ak mag ñi yépp taamu ko kon daal Ndeye mën nañoo jàpp ne au oh, Kayar mooy ndox bi ñuy aar ba tax na noonu laay jógee ne saraax ci biir xew-xewlu làmb ah, ak journal suñu làmb la ma xëyee ci xëtamu njëkk nag ginnaaw yàqu-yàqu teef am ñu koy ñaawlu bu baax amaat na Mbaye Babacar dañoo ne yaa jamais 203. Mhm. balaa mooy am nag kii di Gora Ndoye àdduna ci suñu papa Gaston Meng ak commandant Thioune lan lañu ci wax. Gora moom moo jiite association des jeunes amateurs li mu wax mooy jëf ju ñaaw ji nga xamante ne bii moo am barki démb ca arène nationale te ñépp di ko ñaawlu. nañu bàyyi yoon def liggéeyam képp ka nga xamante ne bii laale nga ci rek wala taqee nga ci ñu bàyyi ak yoon mu def ci li mu war a def ki nga xamante ne bii moom mooy commandant Thioune nee na war nañoo bàyyiwaat bu baax a baax ci sécurité bi nekk foofu ci arène nationale ngir ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ñëw ci làmb ji wante tamit ngir aar li nga xamante ne bii mooy bijou bi nga xamante ne bii làmb moo ko moomal suñu bopp. Père Gaston Mbengue tamit le Don King de l'arène nee na képp ka nga xamante ne bii bokk nga ci ñaawteef bi war nañoo bàyyi yoon def li nga xamante ne bii mooy liggéeyam te nag yoon jël ci ay décisions yu sévères ya nga xam ne képp ku ko déggati rek sa xel sax du dem ci laal sees bu di ko buddi suñu làmb def li nga xamante ne bii moom tamit euh, mooy mooy mooy benn benn taxaw seetlu ne ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo laale ci ñaaw ñaawteef bi yëpp toll ci juróom-ñaari nit incha allah daañu leen présenter procureur bu ci yàlla àndee ñu jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy procureur bi. mooy yoon bu ñu leen koo defee loo xamante ne nii bu ëllëgee Mbaye Babacar keneen ci ñoom. du xalaata def li ni mel waaye ba ñu jàll ci loolu na combat bi am le 26 dox ci diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye kii di Malick nag mbër bi nga xam te ne laaya naa ku ci nekk mm-hmm. nee na ñoom ñaar mbër yooyu ku ci nekk guerrier nga jàmbaar nga ci sa wàllu bopp xam nga bés te bés bi xam nga fi mu la toll Malick Niang moo boobu la combat nee na ñoom ñaar ay ndaanaan lan ay jàmbaar lan wante li tax combat bi metti ñoom ñaar ñëpp ci ay défaite la ñu jóge ki nga xam ne moom mooy Moussa Ndoye ci défaite la jógee Garga Mbossé moo ko mujjee daan Euh, Sa Thiès jógee ci defet défaite Boy mu jee koo daan nee na loolu moo tax combat bi nar a neex nar a metti te ñoom ñaar ay mbër lañ ya nga xamante ne bii fi mu toll nii seen kanam gisuñu dara lu dul ndam kon nee na combat boobu mën nanoo gis combat bu neex wante mën nanoo gis combat bu metti dañuy gis combat bu metti waaye kër combat am métti ci moom nag mooy nga Mambala Mambala mu da war a taseeg mbay guy gi nee nañ defet moom araamal na ko tuf tufeet na ko bàyyi ginnaaw nee na bokkul sax ci li nga xamante ne bii mooy xalaatam fi mu toll nii ndax li nekk ci kanamam wala li mu gis mooy jàkkaarloog mbay guy gi rek jëflanteeg moom won ko ne maa la mën maa la ëpp doole maa la ëpp expérience maa la dàq te noonu nag kii di Moussa Ndoye adversaire u Sa Thiès ginnaaw ba mu tasee xibaar yi démb ci ëppoon presse am ba mu ngay tëkk doomu Double Less boobu Mbaye Babacar. nee na ko su ma la jàppee doo puus doo paas te loo ci xamul lébu yëpp fi mu toll nii ñu ngi sama gannaaw journaliste yi. samp laaj jëmale ko ci ci moom ne ko lan la la kombaa bi jaral mu ne combat bi def naa ci lu ma mësta def ci combat dem naa si fu ma mësta dem ci combat te it comme ni ngeen ko xamee dama damaa jóge ci defet ba nga xamante ni bii damaa war a ñëwaat ci làmb ji wane sama bopp kon incha allah Sa Thiès na xam ne euh, dimanche incha allah wala samdi la. samedi samedi incha allah yem na client ba nga xam ne fa mu koy yàkkalee moo koy jaaxal. samedi boobu du yomb waaye ka sam dem yoon yomb ba neex ba tuddee ko borom 10 10 di faral do njaago ba ca parcelle journal damay xëy di samp laaj Mbaye Babacar mhm. mooy kan moo koy arrêté ki ko nar a arrêté nag moo jaaxal ñëpp fi mu toll nii Franc moom nga xamante ne bii dafa toj mbapat yi ñu ne waaw mu dugg ci arène bi commencé toj ndax 10 combats 10 victoires mbër bu ko def ah mbër waratulaa bañ moo tax journal bi nag kan moo ko war a arrêté journal bi nag dafa mel ni da koo tegal ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay adversaire ñi nga xam ne war naa mën a bëre ak ñoom nee na ki nga xam ne mooy Malick Niang mën naa bëre ak Franc Sa Thiès mën naa bëre ak Franc Moussa Ndoye tamit mën naa bëre ak Franc guy gii ak ki nga xamante ne bii mooy rëg-rëg ku ci daan mën ngaa bëre ak Franc Franc nee na bu amul ñooñu bu amee ki nga xamante ne bii moom mooy pakal ak Forza combat boobu ku ci daan soxla na la ndax fi mu toll nii nee na yoonam bëggul kenn téye ko waaye suñu làmb dafa ñëw ci palmarèsu palmarèsu euh, ki nga xam ne moom mooy Franc nee na Franc moo daan géej mbambu laan daan Jara 2 daan Rëms daan Serigne Ndiaye numéro 2 daan ki nga xam ne moom mooy Caatu Yoof daan Njaga Doole daan ki nga xamante ne bii moom mooy mbaytin numéro 2 ak Ngeer daan Bébé Saloum ak Tyson 2 muy 10 combats 10 victoires 10 sur 10 pañe ba fees dell na ah, namul dara waaye kamu daan nag mu jëlee ci naqar di Tyson 2 suñu lamb la mu xëy di wax nee na kan moo nekk ci kanam Tyson 2 day dékk xale loxo wala day xaar loolu journal bi wax nee na fi mu toll nii war naa mën a may rakkam yi nekk ci gannaawam sans tàllal leen loxo bëree ak ñoom parce que làmb ni ñu koy waxee boo daanee dangay dem wante boo daanoo da ngay taxaw mm, nekk sa gannaaw nga may leen nga may leen sance wala ñi nga daan nga joxaat leen revanche ñu am occasion bëre ak ñoom bëre bëre waat ak yow loolee tax suñu làmb tey indil ki nga xamante ne bii moom mooy Tyson 2 ay adversaire nee na mën naa bëre ak xale bi nga xamante ne bii mooy le prince de Ndakaaru ñu koy wax jën euh, kayre doomu doomu doomu doomu booy kayre nee na war naa bëre ak moom wante mën naa bëre ak général Malika mën naa bëre ak Serigne Ndiaye numéro 2 wante mën naa bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy Malick Niang wala Garga Mbossé wala ki nga xam ne moom mooy Yékini junior mi nekk nga xam ne fi mu toll nii moom tamit euh, amagul combat wante Modou Anta tamit mën naa bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Tyson Tyson 2 ba léegi suñu làmb mu ngi ci Tyson 2 nee na mën naa jox revanche euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Gora Sock wala ki nga xamante ne bii moom mooy Garga ñoom ñaar ñi nga xam ne Tyson 2 daan na leen war na leen mën a jox revanche bëriwaat ak ñoom. maanaam instant bi daal ku daanu rek garab gu daanu nga xale ci yow lañu jàngee yéeg. non du du jàngee ci yow yéeg sax mais làmb boo daanee da ngay dem boo daanoo da taxaw xaar. waaw mi ngi noonu loolu la ñu nekk sa gannaaw mën nga leen a may sens mais ñi nga daan ba pare tamit mën nga leen a joxaat revanche ka taxawul xaar nag ba daal dem ba fee nga xam ne mooy nangaan jël fa raw gaadu ko ca galaaba nag lu simple ba di ngaañ sekk mbay Babacar ka mu fa daan mooy El Hadj di Ndiaye ca ndangaan sàmbul la amee woon tegoon fa 2 millions ngaan daan ki nga xam ne moom mooy El Hadj Sidi jël ba nga xamante ne bii amul benn werante El Hadj Sidi tamit nekk xale ba nga xam ne euh, journal bi nee na mu ngi ci yoon war nañ ko bàyyi xel lesel la doon bindu pratiquement léegi ñu gis ko mu dugg ci luur yi di jëflanteeg ñoom booy àgg ci final yi kon xale la ba nga xamante ne bii macha allah mën naa bëree te dama ñëwoon na drapeau du mhm. ñu gis la nga xam ne moom la fa def. mu ne ko wane ko boppam bu a baax ah. journal des arènes lañ jëmaa ah. suñu papa Amboura la muy xam ne ci journal bi nag kii di Reug Reug ak Franc li leen may ñi nekk roi ci mbapat yi ñoom ñoo ko kiyal seen bopp dañoo xam fondement yi nekk ci làmb lutte simple ñu koy def. dañoo dañoo def ABC bëre. ABC bëre mooy jaar ci mbapat yi rampe wane sa bopp ci mbapat yi parce que euh, li ñu naan loo jàngul mënoo koo tari. Mm-hmm. loo nekkul ndongoom doo nekk sëriñam loolu moom moo ci nekk te Franc ak Tyson de Franc ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, rëg-rëg. dañoo rampe ci làmb mbappat yi suñu papa Ambroise Sarr mooy wax nee na ñaari mbër yooyu ku yëbu xaar lañ ci kaw a kaw ndax incha allah fa lañ jëm wante Serigne Ndiaye numéro de tamit nee na mi ngi ci yoon mu ngi ci tànki franc ak rëg nee na mi ngi ñëw. kay joxe ultimatum nag boo xam la koy jox di Malick Niang ah. Hmm. boxeur ba nga xam ne ni bu yëkkatee loxoom fu mu ko dóor rek buntu feeñ. Ah, la muy wax dala koo mës a dóor. <laughs> ñam ko dóor ñu la muy wax nag ci journal su record nee na. Ah. saison bi bu ci amul làmb. Ah. bàyyi na. nee na bu bëriwul ci saison bii day bàyyi làmb loolu la wax ndax nee na toogaay bi metti na toog na juróom-ñaari at. yàgg na na bëriwul te loolu dafa metti di entraîner amoo combat di lekk bu baax toog sept ans bëriwoo nee daal saison bii bu ci amul combat day bëri nee na nag promoteurs yi ñu ngi koy seet si ñu ngi waxaale ak moom ay combat mais ba léegi juboo guñu ak moom comme ko bëgg naa bëri nag na wàcce loxoom off loxoom pour promoteurs yi mën koo utal combat. na gaaw gaaw am combat ndax Malick Niang ci njabootu làmb la bokk am na fi place ah noonu laay ko bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb lan ngay tàggatoo yee. xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante face to face ba fële ca TFM diggante Boy Niang ak Tapha bu leen ko fàtte. le 27 en direct sur la TFM. ak Leewtoo TV ak Leewtoo TV. Mhm. mu ngi noona damay kontaan ci yéen bu baax a baax di sant di gërëm sama équipe technique bi Bamba mention spéciale Magne Pro sama caméraman bi damay bëgg ci a ah, Fama sama caméra woman bi seen Fall bëgg naa ci yéen bu baax a baax damay def administration fekk ma matu joxum ba ah, naar sama darmanko bi damay bëgg ci yow bu baax Aïdou Diouf jofa ño ko waaye sama céré bu nice bi ah damay kontaan ci yow bu baax a baax Kébé sama infographie bëgg naa ci yow maire Nafi Ndiaye kontaan naa ci yow bu baax a baax maa ngi lay nuyu Ousmane Diallo damay bég ci yow joo suñu gan bi naan ko bienvenue damay bég ci yéen bu baax a baax a baax a baax Pape Thialis Faye borom kër gi damay kontaan ci moom Abdourahmane bég naa ci yow mention spéciale sama chauffeur bi Modou Mané ah 100 pour cent assurance sécurité ah noonu lay def la tàggatoo génn jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu booñaa war wax loolu nee na booñaa bi loolu ci combat loolu ci bañul moom booñaa bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbër yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi man li ma wax moom laa xam mun sama kopp fol de te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am lu sifle na xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man